dafa am ñoo xamante bu lu ñu dugg lu ne rek daa am nu ñu si duggee dama ñëw premier jour barke Mouhamed ndogu billaahi ma xam nga fekkoon ko ngi sala da xam dama ñëw avant ndogu mu jox ma ñaari kilo mburu ma ne ko réel too sama ngor xaar xaar ndogu barke leeru alxuraan loo mu seeda baaxul ndogu li damaare mu joxaat ma yeneen ñaar loolu du kat mu jox ma 5 kilos eh. ma beneen bi moo ko nekkal 5 kilo barke leeru alxuraan ak burtu bisaab ak ay affaire plateau ay ay kii ah. billaahi 30 minutes mu jox ma ginaaru lëmb ak quelques pomme de terre barke Seydina Mohamed loo mu seede baaxul Thierno Faye fa la ko fekk may ñibbi mu soosal ma mburu ak ak pomme de terre may ñaab ak moom xam nga kon foo fekkoon fekkoon kooku noonu da ciy ngisal du ma du ma invité waat waaw bu xool fekkoon kooku da ciy ngisal bu fekkoon da ciy ngisal du la accordé waat mais si si accord surtout seen rappel ok vagal dama vagal ne ma 5 tonnes chaque jour del ñëw soo ñëwee. mais maa doon tawal yërma mais xam naa ne man na ko tëb te yéene na ma ko. borom këram mën na ko te yéene na la. barke leeru alxuraan suuru julli suuru julli. suuru julli programme ma ko ma ànd ak sama waa ji ma jékki-jékki na fa jaas sa mu tegal ma bool boo xamante ni damaa mujj sax wala premier lépp laa ko appel vidéo ban xayma la mu toll. am xar daal ci gàttal moom la ñu kiyal maag sa waay ci lañ ci lañ njëkki uh, kii ji daal ci yendu ak suñ ngoor affaire yooyu njaab ak ñibbi. bu non yow yow c' est n' est pas compris quoi. n' est pas compris non ceci émission ceci correct normal dama ne. ceci jeune y' a pas de film y' a pas de femme. ceci travaille bien un seul préparation les combats là ceci annulé les matar ba ceci accorde bien les annulé les euh, les demandes les Macky Sall waaw kon saa si boobu kon ñu ngi ñaan matar ba ngir yàlla ak yonante mu waxal ñu Macky Sall mu bàyyi ñun ñu delluwaat suñu sport national. actualité mooy làmb hmm. waaw.